sëriñ bi nee na walil xari ni ñeel na aji sañ si maali yi jàpp alalam almoas bi dañu laq an walif koy falas ci falas laatil ma tooxuma ci dee dangaa lebal nit sa sila dikk fekk ñu di ko falas bu la neexee jël sa sila waaye bu dee dee moom yaag ñëpp yam da ngay sompoo wala mos tookan donte ci aju nit si kàll soo ko fekkee mu mel nam meloon bu la neexee nga jël ko waa bi xel wala muy jàmbu daw da nga koo jaay sëy na nga dikk fekk ñu di dégg nga de maanaam ñu di ko falas su la neexee nga jël ko wala si moo waaye nag su boobaa war na ko jàmba di nga la gis dem dajut bu fekkee tey jàmba dafa daw soo ko waree gisoo koy dootoo jël si de naan damay sompoo déedéet ba nga déggee nag ma ni wala xel yi ñeel na aji fayu ak simaal yi jàpp àllam almuhaas jëli ñu làq an wala ko fal si falas am na ñetti sàpp sàpp bu njëkk bi indi ñett gi ngeen jëpp ko xuramaa wu way fa yoon waaye soo dikkee bëgg a jël la nga ko jaayoon way fa yooyu ñu ne déedéet bàyyi la jox la njëg kon nag su boobaa loolu moom dootoo ko yóbbu ñu ne xanaa dañ koy jot ci alal ci ci ñuy falas mu ni wala bimaa leen donti seen alal la mel ne da nga ko koo jaaye woon ci njëg gu neex nga xam ne xuramaa yi ñoom buñ la fayee sa njëg ñoom daañu ci am bénéfice bu bari mu yokk li ñuy seddoo kon su boobaa bu leen neexee ñu jot ko jox la sa njëg nga dem dama ne woon inam yëpp dañ jël xuramaa sartu ñaare bu am kanati jàpp la maanaam na jàppandi ak jëlaatam kon laa bëgg wax boppam jigéen joo xam ne jëkkëram dafa xaraf ak moom war koo joxu can joxu ko ko ñuy falas jëkkër ja loola dootul luñ mën a dellu ci moom ndax fay kenn mënu koo fay kon su boobaa na leen sompoo koy sumatul akuk buum jabar joo xam ne dafa sumi koo jëkkëram ameel ko alal bu ñuy falas ndaw sa su boobaa kon buum nga la fa nekk mooy jëkkër ja day sompoo waaye du mën a dellu ci buum nga sëñ bi leen xisaas ak xisaas ni ki tey waa joo xam ne sii maanaam dangaa yëleen loog xisaas jaan yi dangaa yëleen loog ka nga jam mu dikk fekk ñu di la xis ñu di la falas kon su boobaa dootu dellu ca xisaab ba maanaam day sompoog ñi nga xam ni comme dañu ne yërëloo woon ci ci ci ci ci dee kon su boobaa bu dikkee dootu dellu ne day fay day sompoo dee ja rek dama ne woon sàtt bu njëkk ba indi ñëpp nañ jëfoo ko maaw sàtt ñaar bu am ka nekk jàpp ni sàtt ñett wala yem tëkk ci taxawul ci melokaan wa maanaam la nga ko joxoon bu taxaw dootoo ko jël ni ki laayen ti rek kon waxuma leen dëbéef na aleen ko ci pet mi da nga ko joxoon pet ba waa ji dëbb ko kon su boobaa dootu ca dellu aw xulita wala jaxase ko bi xëy ni sin turul koccam dégg nga de maanaam pet boo ko jaayee mu jaxase koog leneen dootoo ca mën a dellu waaye bu fekkoon pet mi dañ ko jaxase tam mu bokkal kon it ñu la taat na la nga joxe woon joxe aw su ñu ne wala ruyee lépp su doo ndax da nga ko jaayal ndax mu topp ko jiwu ñor da ngay sompa waaye doo ko jël aw ku si la ku si la soo boo malaan ma da nga koo jaayal malaan ma dagg ko ay complet ba malaan mi nga xam ni léegi tuxu na te melokaan wa kooku da ngay sompa waaye dootoo ko jël aw su bee wala na def këpp soo xaas ma ñu ko da nga ko jaayal am xar jotagu laa fay nga dikk rek ñu di ko falas waaye ren dina xar ma su boobaa kon it da ngay sompa waaye doo jël xar ma aw sa samara wala maanaam wow ruta bu foo mbanax joo ko jaayoon léegi da nga koo jaayal mbanax dikk fekk mu wow kon su boobaa ba tey da ngay sompa waaye doo ko jël mu nekk aji raxi nit ki bàjj sàmm moom itam tey day sàmm jur gi ñuy falas waa ji moom itam day sompoo waaye gënta yey ci xar yi moom ñëpp a yem war na ak yu koy niru te mooy bu ñëw yu koy niru mooy bàjj bi yaxal fas wi ak ki nga xam ne da doon garde kooku it gënta yey ci fas yu mu doon yaxal gënta yey ci li mu doon garde moom ñëpp a yem day sompoo aussi xaanootul borom bitig moom itam gënta yey ci maa nga xam ne bii nekk na ca bitig ba de su fekkee waa ji da daal luye woon bitig aa dégg nga de waaw moom su ngay fàllas gënta yey ci li na ci bitig bi déedéet moom ñëpp yam day sompo waraa din ak aji delloo ci li seen atin yal sila day bin isaabas ay waa ji da nga koo jaayoon sila dégg nga de mu de gis ci ayib di ko delloo ci dikk fekk ñu di la fàllas gën a ku layee ci sila ci moom ñëpp yam day sompo wayen uxta donte jàppee foon na sila si andee leen ci bor donte da nga ko ameloon ba fayee ko mu gis ci ayib delloo ci ko fekk ñu di la fàllas moom ñëpp yam sila ko su dañ ko naan yeewal fii te ñëw sompo mu ne waa jàmm yàlla alxar du lekk te saa li ko dañ koy def ni ci maanaam kasaalika dañ koy def ni ci maanaam silaasu ñu delloo si ci ayib bu dee silaasu ñu def silaasu ñu jëlu ci ayib yi soo lebalee nit ci dara dikk fekk ñu di ko fàll la nga ko lebaloon doo ko jël yaa ñëpp a ci yem waaye lam yàq di ko donte nga bëggoon almuxtar doo aji leb ja aji sàkku jaa leb donte waa ji li nga ko lebaloon jotagu ko nit buñ koy fàllas boo dikkee gënoo cee kenn da nga koy teg sompo aw wala moom kay fàllas ma aw wala moom kay leb kal bay ni ki jaay la suñ ko defee ni ki jaay def na ci kon dañ naan su fekkee nga bëgg ko yow mi ko ko lebaloon yaa ci gën a yey ci fàllas ak ci dee su fekkee ni nag ñëm na ko ba dem moom bu dee fàll sax kan nga koo jël waaye bu dee dee yaa ñëpp a ci yem xilaaful am nañ ci wute sëriñ bi nee na wala hoo ñeel na aji jaay silaam fekk ñuy fàllas kam ko jaayoon fakku rek ni mu xob bi tay ni ga waasa sama sompo bi si dayi ci njab la dangaa jaay nit ci silaa bi fekk ñu di ko fàllas mu tay le ko su la neexee dem te kam ko tayle jox ko lam ko taylee te wal bëti si di ko sompoo njab waaye laa di si dayi jaay ñuy waxuma ñëwtub jàmb bom de da nga koo jaayib jaam jàmb soj bopp doon dooni jàmbu borom doom ja jël jàmba yeew kon su boobaa boo demee joti sab jàmm boo dikkee doo sompoo njot ga njot ga moom doo ko sompoo njot ga nga ko jaayee woon nag moom mën nga ko sompoo waaye njot ga moom doo ko sompoo nga ne wàññeel na ko naqsul mu aatati fi di sompoo indi dem dem delloo sir na silaas day bin saabas ay yow tey da nga koo jaay si silaa dikk fekk ñu di ko fàll ba nga xamee ni sompoo nga ba àggal waaye kam ko jaay moom moo ko jaayaatoon su ñuy fàllas jaayaatoon na silaasa kam ko jaayoon delloo si ko ci ay su la neexee nga daal di sànni la nga sompoo woon ni man sompootuma jël ko si laa dem sa yoon waññeel na ko it radduha delloo silaata wal mu xaasib sama sompoo bi bi ay jumti ay sama yoon jiw ndogalu yàlla da nga koo jaay ci silaat fayeegul nga dikk fekk ñu di ko fàll nga jël silaata fekk ci ay soo xam ne mi ngi sosoo ci moom mi ñuy fàll nga delloowaat silaata dégg nga de dikk ni man damay sompo njëg gi ak ay bu ko defee war a daal ñeel na ko moo tax delloo ko wal maa sompoo bi ay jumti ay sama yoon jiw ndogalu yàlla bu ko defee nga sompoo ndem ay ji ndogalu yàlla la nga sompoo njëg amin mustari wala aji jëndam wala nga xam ne fii tey silaat yi moom da nga ko koo jaayoon yàlla dogal moom mi ko jëndoon ñu di ko fàllas mu sosoo ci ayib kon su la neexee nga sompo ayib aw añ na diin wala ab jàmbur ni ko tey ayib li nga ko jaayoon ab jàmbur ko ayiban nga dikk fekk ñu di ko fàllas soo ko jëlee bu la neexee sompo ayib lam yaa ko yoo xam ne jàpp ci woon nag ar soo ak tey aw ak soo wala mu jàppoon na ca tey sax waaye waxaadi dal na li ayati ba ca nelaw kon it boo ko jëlee bu la neexee sompo ayib di nga xam ne moom la ca jàmbur ba def wa ilaa ndem nga xam ne dafa delluwaat ca nelaw wa ilaa ndem delluwul ca nelaw nag nga xam ne tey dañ ko jaayee sila dikk fekk ñu di ko fàllas fekk def nañ ci ayib kon nag su boobaa ba silaa si matutul nam neloon fa la sompoo bi naq bi nisbati naq si ca kem la nga xam ne mooy la ca wàññi ko ci ayib la nga jàpp silaata maanaam fa la jàpp moom bàyyee silaam sompoo dégg nga de bi bi nisbati naq si ca kem la ca wàññi ko maanaam lu day la ci wàññi ko loolu ngay sompoo da nga ne war a du bari sama ne ñeel na ko delloo leen ni njëkk bi da koo xam ne nga def na ko waax fa ak jàpp silaam tey waa ji da nga ko jaay ci sila mu avance la genn wàllu njëg nga dikk fekk ñu di ko fàlla bu la neexee nga delloo lam la avancé jël ko sila wañeel na koy ak su bëri jàpp lennam wax na seen sompo bi fayet seen faat tey da nga koo jaay ci sila dikk fekk lenn la mu sànq ko waaye la ca defe nga fa su la neexee nga jël la fa def dégg nga de dem sompo la faat mu dina ne ci loolu mu ne ko bay umin ni ki jaay ndey wala de joo xam ne jur la da nga koo jaay ndey ndey jo jur nga dikk fekk dégg nga de maanaam doom ja nekk fa kon su boobaa sëriñ bi nee na bu la neexee nga jël doom ja sompo njëgu ndey ja maanaam buñu nee ndey ji ñeent fukk la war a jar doom ji ñaar fukk boo jëlee doom ji sompoo ñeent fukk ba mu ne wayen maa ko ndem deena ahadu maa kenn ci ndey ak doom joo ko jaayoon nag dikk fekk ni di ko falas falaay sa biitub cër te dee moom doo ko wut du am ak cër aw baaxa wala mu jaay al wala da doom ja falaay sa biitub cër ci kanam tuuti dafa xaddal sëriñ bi nee na waax sa jàppat na sam rafet na ñett moom ku ñuy falas dañ laa jaay tool bi yàlla dogal mu mel ni nga wattu ko kala ko jaayoon bu dikkee fekk ni du la falas na ñett moom yaa ko moom wal xalata ak xalaja maanaam dalaa jaay taax yàlla dogal nga luyee ko jël lu yaas bu ngay fàll su dikkee bu jëlee taa xamit lu yaas boobu yaa ko moom ñu ne faaw mu ne ilaa soo fan dële ngëndal tàmm loo xam ne mag na ca gàtt ba mu jaay la gàtt bi dikk fekk ñu jëla palas boo jëlee ngëndal la it da koy boolee gàtt ba yóbbaale aw sam rek wala meññet mu abaratan mu di ñu góoral ba mu lay jaay garab yi góoral nañ ko ba noppi boo ko watee meññet ma it bu ñu lay fàll bu ñëwee day jël garab ga jëlaale meññet ma nga di waax sa jàppat la mukkiri aji tonte daabatuhoo daabaam wa arduhoo ak suufam mukkiri aji tonte dana jàpp daabatuhoo daabaam maanaam tey waa ji nga xam ne tey dalaa luye woon daabaam dikk fekk ñu di la fàllas daaba ji taxaw mu jël daabaam dem wa ardo ak suufam ki nga xam ne dalaa luye woon suufam dikk fekk dégg nga de ñu di la fàllas te joxagoo ko tol mu jëlaat suufam nga ne ma ko dima jiitaleef na ci sariya ca mbayum suuf sa ci fàll ci fàllas masalan li ma bëgg a wax mooy bu la waaye luye woon suuf dégg nga de nga bay ko bu ñu lay fàllas bu dikkee moom la ñuy jiital sa fay ko ba noppi ndax moom moo la jox suuf si nga ji su ma saax yi bu ñu fayee borom suuf sa ba noppi su ma saax yi topp ko doon nandal tool ba kooka lañ koy teg fay ko bu ko defee su ma murtahinoo topp aji sàkku ja tayle ka nga xam ne moom lañ tayle woon tool bi yow mi ñuy falas yaa ko tayle woon tool bi bu ñu fayee ka nga xam ne moom moom suuf sax fay ka doon nandal tool ba fay door a jël ca mbay ma fay ka nga xam ne moom nga tayle woon tool bi yow mi ñuy falas nga ne wasaa ñëw aji mécciw àqu moo gën a yey dimaa ca la nga xam ne dee di nekk na ci loxoom ci kanam tuuti masalan tey bu fekkee waa ji da nga koo joxoon ay piis mu di ko ñëw buñ lay fàllas buñ dikkee bëgg a jël piis yi moo ci gën a yey ba ba muy fay la nga ko fay la nga ko war la fay bu ko ñëwee wala ñu ne xanaa booba day fàllas mu wala bi moo tul doonte dee la moom aji liggéey ji moo gën a yey dimaa ca la nga xam ne dee di nekk na ci loxoom mu ne wa ilaa ndem nga xam ne nag nekku ci loxoom ni ki tey ñawal na la piis yi ba di la ko andil fekk di la falas falaa gën a caayee ñu ni kon gën a caayee moom ñëpp a yem day sompoo mu ne inlam di def ndem laaful li seen ati ñel métier ma say am dara waaye bu ca laafalee dara nag su boobaa loola moom moo ca gën a yey ñu ne faaw mu ne ilaa nas ja ndara rab de moom maanaam tey waa ji dafa rab bu dee dafa rab da ab da nga ko ndéga de bu dee cuub moom su boobaa kon xëy na cuub ga moom moo ci gën a yey fakal ma si di kon nit ki laa nas yëndira rabb bu dee rabb moom fakal ma si di ni ki ndollantu la maanaam bu fekkee daf koo rabb nag ni ki malaan la woon tey mu rabb ko ba eggal kooku fakal ma si di ni ki ndollantu la su boobaa nag kon isaar ko dana bokkaale di xiimati ci xëy may rabb ga maanaam moom bokk dana bokkaale ca malaan ma ci xëy may rabb ga lu day na lam ko rabb ni ki da nga koo joxoon fukki mu rabb ko kon nag su boobaa dana ci bokkaale toll ni xëy may rabb ga nga ne wal muktar yi aji tontu daaba mooy ci luyee sa daaba bil mooy moo gën a yey bil mooy daaba ju ñu ràññee waa ji da nga ko luyee daaba mu dikk fekk ñu di la falla bu dee da nga ko ne woon fas wee wala oto bee moo ca gën a yey ah dégg nga de ba ba muy dox la ngeen waxante woon ba noppi wa moo gën a yeyit moom aji tontu daaba bi xëy de ci lu dul daaba ju ñu ràññee in ko bi dat ndéem nga gis na ko même boo ko ne woon daaba rek jox ko benn daaba mu dem ba di ko bëgg a waat ngi gën a fàllal jëng ko def moo ci gën a yey wala uddira donte wala lef ni ko fexte muk tër yi ca topp donte da nga ko ñu woon bis bu ne nga war daaba ji maanaam bu tayee nga war fasu weex yi bu ëllëgee nga waru xonk yi bu ëllëgee nga war wu ñuul yi tey bu boobaa kon bu xasee ba ngëb jënn moo ci gën a yey ba bay soxlaam di mat mu ne war a baxa borom daaba moo gën a yey bil mahmuuli ca la mu sëf maanaam tey da ngaa fayoon nit mu war laa sëfali ah li sa borom oto bi safali na la dikk fekk ñu di la tàllas moo gën a yey ci lim sëf ba bañ koy fay wa in lam yakun doonte nekkul woon lu ñu sëf la maaha ànd ak ànd ak moom kon it du tee la nga xam ne jébbal na la ko ba noppi du tee it moo ca gën a yey ñu ne faaw mu ne ma maalam yàq di ko fé nga bu ko nag rabbu foo borom ba ah waaye nag su fekkee lu ñu yenu la nëpp nga ko ba àggal ba denc ko kon nag su boobaa gën a ticaayee nga ñëw fi kaw ñu mystère yi mu ci nekk aji jënd ah xadi gën a yey bi seen ak seen sila yu soxu soo xam ne def na ko firi li fasadil bay ngir yàqu njaay mi waa ji dafa jënd ci yow sila waaye njaay mu yàqu la mu war koo delloo si dikk fekk ñu di la fàlla ndax sila soo fu mu jëndoon ñu war koo firi moo ci gën a yey dégg nga de aw laa wala moom kay gënu caayee aw wala moom kay ba nga déggee moo ci gën a yey ba nga déggee gënu caayee xanaa ci nakk di booba dafa teewal ba noppi dégg nga de aw wala nga xam ne ba nga déggee moo ci gën a yey ngay wax xanaa booba si naka dafa teewal njëgg bu teewalee njëgg ba pare dikk fekk ñu gën a palas kay kon ci laa soo su mu jëndoon ci yow moo ci gën a yey axawaalu am na ci ñetti wax kon nag bu teewalul njëgg gënu caa yey ndax kon da nga koo jaayoon ci laa njaay mu yàqu ñu war koo firi mu dikk fekk ñu gën a palas kon su fekkee teewaloon na njëgg moo gën a yey ci ci laa dégg nga su fekkee teewalul woon njëgg nag moom ñëpp yem ma ne waxoo moom nag xàqu moo gën a yey di sama ni ca njëgg boobaa nag ni ki tey yow da ngaa jëndoon ci nit ci laa yàlla dogal nga dikk fekk ñu di ko falla nga waroon a joxe ndig di ci fekk ñu di ko falla ah teel sa njëg yaa ci gën a yëg nga ne woo moo gën a yeyit bi sin ak ci silaa sa nga xam ne moom la joxe woon il bi ak leer jaayat na ko bi si ci silaa wax ci kat yeyef silaa sa nga ko joxoon yow da ngaa jël soo fas jox ni mu jox la aw fas dégg nga de yàlla dogal fas yi mu la joxoon ñu yey ko nga dem di ko ko waxi fekk ñu di ko falla boo fekkee soo fas taxaw yaa gën a yey ci sa fas yi nga ko joxoon loolu mooy wax boobu nga ne ma ko dee atteef na bi bi ak seen madine jàpp madine alwasi xata banque waaye danaa lebaloon bind ko ci banque nga fay ko bor bi ni ko léegi jox ma banque ma xotti mu ne du ma la ko jox ñu ne ko aka kay jox ko banque bi aw taqatea wala dogam dama koy xotti mu ne doo ko xotti ba tey yow moom mu ne da nga koy xotti yow lañ koy jox waaye laa ko daa xin fu ma can ko dee goo xam ne fayeef na ko ndaw si da nga koo amee lu can fay ko can ja ba noppi ni ko damay xotti suñ ko bindoon mu ne déedéet dañ ko fiy wàcc pour bu ëllëgee ñu mën a xam can bi ñaata la kooku kooku la ñuy atte ni ko nañ ko fa ba wani wa moo gën wani wa rabbiha wa def na atte li rabbiha ñeel borom bong ba radduha ak daloom ne daandee wooye na suqoosaa ak rotam yow dan waa ji dalaa lebal ci ko ci bong ba mujj nga ni ah fay naa àq dina ndax bong baa ngi nii kala lebaloon ni la déedéet bong bi daa wadd ci man nga ni ko damaa fay kon nag ñu ni wax na dëgg daa wadd ci moom da nga ko ko delloo nga ni wa def na atte it li raa in ñeel raa in biet yi kon nekk na ci loxoom raxnoo ak tayleem def na atte yeeyal ko bi def si day ni ci dañ bong waa ji dalaa tayle silaam ba mujj mu yor silaam nga dajeeg moom ni ko eh yow kat fayal góoma mu ne ah kay dama laa fay moo tax ma jël li ma la tayle woon ñu ne waa ji wax na dëgg fay na la mu ne ko wasi xati ni ci bong saama boo xam ne tudd na rabbuha borom ba suqootaa ak rotam ah dégg nga de tey jii masalan waa ji da nga koo fay bor bi ah dajawaat ak moom mu ne nga yor bong ba nga xam ne moom lañ bindoon mu ne la bong bi dafa wadd ci man nga ni ko déedéet bong bi kat dama koo fay moo tax ma yor ko tey nag yow mi ni fay naa bong bi yow la ñuy dëggal su boobaa nag wala mis ab di seede saa it waa aji seede ji bong ba ilaa biyaa ndara nekkoon ca bong ba ñu bindoon bong ba nag fekke ba mu la koy lebal ñooña bu ñuy seede it nañ dem ba gis bong ba maanaam nag bong boobu lii leeral bi dëgg mooy bong bi dafa wadd rek ñu fekk ko ci mbedd mi nekkul ci loxoy ci leboon nekkul ci loxoy ci leble woon léegi ci leboon ñu fay naa bong bi ba jël ko ci leble woon ñu fayagul bong bi te bong baa ngi ci loxoy keneen ku ko ngëpp kon it su boobaa ci ni fay naa bong bi moom la ñuy dëggal fii mooy liñ tuddee yéer yéer nag sunu borom subhanahu wa taala moo ko tudd ci alquran ne wala tootoo sufa amwaalakum allati jaala laahu lakum fi aqiyaman maanaam bu leen jox way defe ñu seen alal way defe ñu nag mooy gone ak dof ak jigéen baabul mu ne alman ñoonu dof mooy joolum ku ñu yéer la li ifaaxatin ba ba muy xittil wasa bi ndaw def na ko yéer li bu loox yi ba ci géntam gént nag dana nekk bi samaani asara tis ko juróom ñett caay at aw ulumi wala gént nelaw man yi awil ay di wala mbërëk ci jigéen awil am di wala ëmb ci jigéen awil in baat yi wala sax kawari naq ci góor ak jigéen yëpp mu ne waa jàmm yàlla ndax in baat moom mandargam gént la mut la xam moo xam ci àq yàlla la wala du ci àq yàlla lépp ca toog ilaa ndare moom kay ba nga déggee mandargam gént la ci àq laay ci àq yàlla taala kawe na te kon gone gi bu fekkee sax na kawari naq yi bu julliwul woon bañ bu bañoon a julli kenn du ko rey bu bañee woor kenn du ko rey dañ naan ilbaat du mandargam jënt ci àq yàlla xam moom kay ilbaat mandargam jënt la mutlaqan àq yàlla ak lu dul àq yàlla lépp tëra dun am nañ ko dégg dégg waxtu bi xa dëggaleer na gone ga ba mu nee jënt na ci nam yoru ba ndéem si teesul léegi gone gi dafa dem xeexi te màng ga wooye nañ ne sedd ñu ni ko masooroo mu ni masoor naa na ko dëggal bu fekkee si kuñu la mu wax ma ni wali wali ñel na kilifa tëra du ko sarusi mooy ci mu delloo soppandiku ndaw li di aji jeqee maanaam ndaw lu jeqee dem soppandiku mu jaay ci alalam wala mu jënd kilifa ga sañ na ko delloo wala woo ñeel na ndaw lu jeqee loolu raddu tasaru si naf yi delloo soppandiku boppam ca tor ci war a sori ndéem riif na gone gi daal bi muy nekkee ci jeqee rek dafa jël alalam jaay gannaaw ba bu réytee ba xel ma ñor bu ko neexee dem firi njaay ma jëlaat yëfam walaw anita doonte seeñu woon na ba da bu looxi gannaaw géntam sañ naa dellu ci soppandikoom ni ki gone gi dafa juñoon ni bu ma defee nangam ca ba muy gone sama jaam bi gore na léegi yàlla dogal mu dem ba majour def loola su ko neexee mu ne la ma waxoon génn naa ci a waqaa wala tabbi moo koy tabbi waayu njub maanaam même la fekkoon la mu soppandiku woon tabbi na tabbi waayu njub kon it su boobaa sañ na caa dellu ba demee ne war nag na aju jeqee maalik loo xam ne afsada yàq na ko nag inam yoo man dee wóolu wuñ ko alay ci man ndaw lu jeqee lu mu yàq dana ko warlu maanaam dana ko fay su fekkee duul woon luñ ko wóolu waaye boo ko wóoloo jox ko sa yëf mu yàq ko ah kooku nag yaa ñàkk nga ne ma saa wér na waseetoon dénkaaneem ndaw lu jeqee loolu su doon dénkaane ni bu ma dee nañ ma defal nangam bis na ko wér kasati ni ci def wér na ab dénkaaneem daf yow mooy ko xel ma manqué mu dénkaane ni bu ma dee nañ ma joxeel nangam ci sama alal bis na ko def in lam yu xalit ndem du jaxase nga ne nag yiir dem na ilaa itti si maali labbi boo déggee in lam yu xalit mooy léeg-léeg mu wax lii léeg-léeg mu wax laa kon su boobaa ñu ne xel mi baaxul nga ne yiir nag dem na ilaa itti si maali si labbi ba ci wattu alal borom yi baay borom baay ku am baay bala ñu lay yiddi da ngay dem ba mën a wattu sa alal ba dahoo gannaaw yiddi nga xam ne léegi buñ la yiddee sa alal nga mën koo defar doo ci yàq dara sëriñ bi nee na mu fàtti wasin yiir dem na ba xob bi ku ñu dénk maanaam kañ la dénkoon ka bàyyam dénkoon ni sama njaboot yow laa ko fekk sa loxo na la xob bi ñu la banaa la ba muqaddamin ak xob bi muqaddam koo xam ne maanaam xaali moo ko jiital moom itam cib jirim moom itam dana yiir jirim ba ba mu koy xob bi ñu ne ko aw dama ne woon ndaw lu jeqeelee moom wali wali ñel na kilifa raddu tasaru tasaru fi mu may cim delloo delloo soppandiku ndaw lu daa jeexee ilaa ka diri amin ndar lu toll ci dërëm lu toll ci benn dërëm rek nag li ay ci ngir dundam booba nag dërëm daa am max na maanaam booba benn dërëm mënees na koy añ reer ci def ci yeneen boobaa loola moom kenn du ko ko tere xam naa daal bu doon tey ci CFA bi moom dañ naan junne ñaari junne ndax gone gi buñ la ko dénkee bàyyam bàyyi fi alal it nag lu tolloog benn cinq mille francs bu muy faje soxlaam loolu moom du ko yàq laatalaa xeexu ma parce que ay dama ne woon des na yiir gone gis na yër dof ba muy xikki laatalaa xëy ma fase jabaram kenn du ko ca yiir wasilaaxi na sa bii safi u boobu kenn du ko yiir ci fase jabaram wasilaaxi na sa bin yéeglu askan maanaam doom ju ju ju mu jéeglu ne maa ko jur kenn du ko ca yiir wan na yi dàq askanam jabaram jur mu ni juruma ko kenn du ko ci yiir wa yëqimu sawlati gorel um wala tam kenn du ko ci yiir wa xisaas um xisaas waaye jam ko mu ni day fayu kenn du ko ci yiir wa naf yi dàq xisaas te mooy waaye jam ko mu jéggal la kenn du ko ci yiir wa yëqiraari ak tudd buy xoobatin ci mbugal te mooy mu tudd loo xam ne dañ ko ciy mbugal ni ki sinaa wala yu demee noonu wala sàcc wala naan kooku nag moom su boobaa kenn du ko ci yiir wa tasoo koo soppandikoom moom ku ñu yiir xam nal ajiri jëkk yiir xal ijaas nekk na ci wéer ga inde malikin fas imaamu malik imaamu malik nee na kooku ñu war a yiir muy borom xel mu manqué ni ak gone nee na bu fekkee ne soppandiko na jëkk ni di ko yiir lam soppandikoo ñëpp wéy na waaye laa ibnu qasim ibnu qasim nee na du wéy de ndax ku ñu war a yiir buñ la yiirul ibnu qasim nee na boo soppandikoo soppandik ga du wéy waaye nag kon wa alay maa ci seen ñaari wax yooyu lay nekk ala tu safaanoo ga si ko sori fii ci soppandiku dégg nga de maanaam dof ba ak gone ga isaar sa dem bi na baadohoo gannaaw gannaaw gannaaw kiiraay ba waaw bu fekkee gone gi dañu ne li mu soppandiko woon jëkk ni di ko yiir maalik nee na dina wéy ibnu qasim ni du wéy kon li mu soppandiko gannaaw bi mu riitee bañ war koo yiddi te kenn ji déggu ko loola it bu dee ci wax imam malik du wéy buñu jàppee ci wax ibnu qasim it kon dana wéy kon ñoom ñaar dañuy safaano mu ne wasiira doon leef na da nga defil un saa ci xob bi jigéen du xoolu suñu xarasu jëkkër jigéen moom itam des na ko yiir ba ba jëkkëram xarasal moom du xoolu suñu xarasu jëkkër bi ak ndaw nga ne wa saadatul udóoli ñaareel ba mooy na seeda yu maandu seedu ala silaayi xaaliyaa ci yow nu mbiram li ndaw si mën naa defal ay mbiram walaw jaddada doon bu boobaa nag yiddiga wéy na ah walaw jaddada doon yeesaroon aboo bàyyam ajiran ay yirit du tee yiddiga dina wéy comme ñaari way maandu seede na ko te jëkkër ja xaraf nangam àlla dee ci wax ja gën a nang ma ne wali abdi ñel na bàyyi te si doa mu riital ndaw sa ni ko yiddi naa la xam la du ko laaji xarafu jëkkër ni ko léegi yaa moom say mbir lépp loo d'accord bu la neexee def ko kan wasi ni ko ku ñu dénk sañ naa yiddi ndaw sa jëkk jëkkër di xarafal moom wala ñu def doon ta xamee ko rus daa ak liitam ba fi muqaddami xaali mi ci muqaddamu xaali nag ndax moom sañ naa yiddi dégg nga de ak ñàkk ngaa sañ a yiddi nga ne xilaafun am nañ ci wute nga ne wal wal yu kilifa nag buñ ko waxee ñett bu njëkk ba àlla bu mooy bàyyi wala woo ñel na bàyyi albay hu jaay ah alali doom mutlaqan moo xam aqar wala du aqar jëgg ak yu demee noonu doon tu doon sabab boo sabab topp ñaareel ba su ma wasiixoo topp ka bàyyi dénk ne ko su ma dee nag ma yoroon njaboot kooku moo ci topp wayen baw da doon teb jàmbur la mooy sori na mu ne waa jàmm yàlla ndax kala ndax moom wasiyu moomu kala bi ni ki bàyyi la te kon moom sañ naa jaay alali gone ga dégg nga de di ko ca dundal ak yu demee noonu aw wala moom kay wasiyu ba nga déggee kem bàyyi la xanaa ilaa rab sañ na te kon sañ naa jaay xanaa aw wala moom kay ba nga déggee wasiyu comme bàyyi la xanaa ilaa rab andira taax taax moom te bi bayaani sabab bi war na mu biral sabab ba tax mu di ko jaay xilaaful am nañ ci wuti walay sa loxoo dédd ñeel kilifa nag walay sa loxoo dédd ñeel ku ñu dénk ngay wax ci batun maye li saa bi ngir cabatam jël ci alali gone gi maye cabal sañu ko dama noon kilifa bu njëkk mooy wàllu mooy ki su ma ci su ma aakimin topp aakim ñetti ñaango wa baa jaayat na moom aakim mën naa jaay alali jirim ba bi su booti nii ci saxu njirimam wa im haali ako ndànkoom dégg nga de maanaam na ko na ko jaay ci ndànk dégg nga de nga xam ne mooy jirim boo xam ne da damaa ne wa im haali i déedéet wa im haali ako boyalam maanaam jirim ba dañ koo boyal kenn dénk ko kenn booba la akim di jaay alalam ko mil fii akook moomeelam li maa ñe la nga xam ne bi a jaayat na ko wa anoo dina ko moom njaay nit aw laa moo gën a yey loolu mooy sarti way yaatu toodin bokk na ci làquk seede la hoo ñeel ko maanaam na sax ay seede yu làq dégg nga de ca akim dégg nga de war wan ko la jirim ba moom ni ko lii mooy li jirim bi moom ba tey bokk na ci sarti wata sawuko ak jeyal lañ la akim di jaay ci alali jirim ba nañ ko taxawal ci marché ñu jaay ko ci njëgu normal wa adami il fayi fayi din ak ñàkk wa ci ndolant maanaam bu ñu fekk ku fay junni ñu di ko jaay borom juróom ñaar téeméer wa sadaadi ak njub fi samani ci njëgg njëgg nay kee waaye bu muy marchandise wa fi tasiri yu mu ci biral la moom aakim beesmaa yi suudi ci tuuri seede ya moo ndax aakim dana biral tuuri seede ya ak ñàkk jarul muy biral tuuri seede ya xaw laa ni am na ci ñaari waaye la xaa din waxuma aji yar aji yar moom da nga naan ki nga xam ne moom dafa yar dong kooku moom ka jàddin moom sañ ko jaay alali jirim déedéet ka jàddin ni ki maam du ko jaay boo mi la jëfandikoo na nag bi indi ay sirki yéel wéel lu néew te njaay ma boo fi addi mi ci daayib lu néew loolu ndax lu néew loolu ah danañ ko compter fukki dinaar ñii ni ñaar fukki dinaar ñii di fanweeri dinaar sara dun am nañ ci déng-déng wali wali ñel na kilifa daf ko to sa fu ñu bàyyi ndab kilifa ji su ko neexee jirim bi am ku mu bokkal ab pak waaj a jaay genn wàllam mu bañ a def wal xisaas yi bu ko neexee it sañ naa bàyyi xisaas ni ki jirim bi benn waaye jam na ko mu war a fayu mu bàyyi xisaas fay xisaas ñu rot ñoom ñaar waaye nag bu ñu rotee su boobaa bu dee xisaas baa nag na jàpp dëye ndax jirim bi fayu bi amul ci moom njëriñ waaye bu jàppee dëye dëye ji jëriñ ko mu jël dëye ji dolli ci alali jirim bi nga ne walaa yof foo waaye bu mu jéggale de nga ne wa moom kilifa nga ne wa ma daa wéet na it ko ak goreelam jéewa din ci wat su fekkee tey yow kilifa ji da ngaa goreel jaamu jirim bi waaye da ngaa jël alal watte ko tekk fa dana wéet mu naka abbiyi naka bàyyi gone gi moom itam mën naa goreel bu fekkee dafa go mën naa goreelu jaam in ay sara ndeem woomal na maanaam baay bi dafa jël ci alali doomam ab jaam goreel kooku wér na waaye nag na woomal ba mën koo fay sëriñ bi nee na wa innama yëf ko mu xamal dana ak léegi nag riit googu ñu doon wax nga xam ne nit ki mooy bu ñu ko yiddee mu moom boppam mën a doxal yëfi boppam te kenn du ko ni ee wa innama yëf ko mu xamal nag dana atte surus di ci riit dégg nga de alxudaat ca kanam koy attee ñoo koy atte wa diddi sasaan ba mooy ñàkk a riit kooku moom itam ah te mooy defe alxudaatu way atte atte wala aussi ak dénk boo déggee dénk mooy ah ñaar ñu la dénk ñu naan ku ca gën a yey kee moo gën a yey wala kee koy kooku alxudaatu xaali koy atte seet ka gën a yey wala xubu si ak ubusle almaa xaj gëri gu ñu fësal kooku moom itam alxudaatu xaali yaa koy atte wa amril ak mbir wa amril kaay bi mbirum ku faggu maanaam nit koo xam ni dafee nekkul nekk ci àll bi kooku moom itam ah xamuñu barab ba mu faddu alxudaatu xaali koy atte wala sa di askan alxudaatu xaali yaa koy atte wala walaayi kilifteef ko goreelu jaam war nga xam ne bu amul ku ko doon yow yaa ko war a doon alxudaatu xale koy at waxa din jëten te mooy jëten goo xam ne ni ki jëtenu man di ak xas seeg yu demee noonu alxudaatu xale koy at wa xisaas in xisaas maanaam loo def luy war a xisaas moo xam da ngaa dagg cëru nit wala nga rey bakkan alxudaatu xale koy wa maal yee tamit alali jirim alali jirim moom itam yëpp ah alxudaatu xale yaay atte seet ñu ngi koy doxale ak ñu ngi koy dénk way na maayo baaw xamal ne que def na jaay akaaru akaari jirim ba li aajo te ngir aajo léegi nag nit bi bu fekkee dafa am ak pakk wala tool wala kër ma def na koo jaay bu fekkee aajo am na aw xibtatin wala ak ndolant mooy ñeetaane mooy ndolant bu mag te njëg nga xam ne léegi pakk bi mën nañ ko jaay njëg bu neex a neex a neex su boobaa kon def na ko jaay ngir loolu mooy tax alali jirim bi gën a yokk aw li kam nii wala nekkam moom xakaar ja mu wax fan di lu ñu galagal nga xam ne maanaam dañ fay jëñ dañ koy joxe ak mu nekk lempo boo xam ne daf koo sonal kon koy tëgg lu ñu wate ko xilaafoo moo xam ne kenn du ko galagal maanaam kenn du ko di ko joxe ab lempo ca kanam tuuti da nga de sëriñ bi nee na aw sa tan wala cër wala nga xam ne dañ ko cër kon suñ ko defee koy tëgg lu ñu wate ko xilaafoo mu wute moom nga xam ne tey maanaam dafa bokk nit am taax te boo jaayee genn wàlla mën ko taa jëndal moo xam ne moo koy beru kon ba tey dina ko jaay aw xalat wala néew xalatu lu yàpp nga xam ne tey kër gi mu am moom jirim bi li ñu koy luyee dafa tuuti kon nag boo ko jaayoon tey mën ngaa jënd foo xam ne danañ am luyaas bu seer kon fay sa gërëm nga watte ko xilaafoo bu wuteeg moom dem jaay ko jënd fu luyaas bu seer ndax anam jirim bi gën a yokk aw bay na simiyi wala mu nekk diggante ñaari simiyu des na ko jaay aw jiraani wala dëkkandoo sooyeen yu bon des na ko jaay aw jiraat sërike wala na mu bokkaaleem bay an jaay kama bokkal kër ga dafa bëgg a jaay wàllam kon su boobaa ñu jaayaleen alali jirim bi ngir mu gën a sakkan waaye wala maa déet alal loxo di ñeel ko nga xam ne tey jirim bi amul alal kon ñun ñu ne ñu ne ba mën a jënd la bokkaale bay jaay kon su boobaa ñu jaayale yëfam aw li xëcc ci intixaali imarati wala ñu ragal tuxul ñu ragal tuxu way dëkk yi jirim bi fi mu am kër dañoo ragal ña fa dëkkoon tuxu ba mu wéet te kon pàkk ba day ñàkk maanaa wala kër ga kon su boobaa nañu ko jaay jombate ko feneen alal xiraat wala ñu ragal ci rab ñu jaay ko wala maa dit alal loo di ñeel ko jum ko réparé aw la hoo wala ñeel na ko alal waaye bal gay njaay ma aw laa moo gën a yéen ñu jaay ko nga ne ma ujura def na yiir alal raqiq ci jaam jaamit dañ koy yiir da nga de gannaaw bi ñu yiiree dof yiir gone yiir jigéen jaamit dañ koy yiir i laa bi si indira ci ndigal ah bu fekkee sa nga baa ko digal nag ni ko yiddi naa la pour mën ngaa commerce wala leneen kon su boobaa jàmm def noonu wala fi neen doon ci benn xeet ni ko yiddi su boobaa fakk wàccim fa ni ki wakkil mu fa wat la kon xeet yëpp la yiddeeku même jàmm boo ko digaloon ni ko yaxantul ci benn xeet dégg nga de su boobaa xeet yëpp tabbi na wala hoo da nga naan ñeel na jaam bu ñu digal yaxantu an nga daa mu sippi sañ naa sippi maanaam wa ku ko ameel bor mu baal wa yàqire ak mu yeexe wala baal wala mu wàññi ca dara wa yàqire ak mu yeexe bor nit ameel ko war war koo fay léegi mun ko négal ba weer wala dee way day fa ak bu mu ganale inistala fa ndeen miinlu la waya xusa ak bu mu jàppat xiraaran xiraal jaam bu ñu digal yaxantu mën naa jàpp xiraal waya sow ak bu mu jëneeb xiraal waya tasaruf ak bu mu soppandikoo ci kay bëtin ci lu demee ne ci may bu ko neexee mu soppandiku ci mayam bu wala luñ ko sarax boo xëy ma jéggeef na mi naa ci mu duwàll adam man yi ñàkk a tere jaam bu ñu digal commerce min ha dégg nga de maanaam ci nangu may waaw waaw mu duwàll nee na jaam bu ñu digal yaxantu bu bëggee nangu may kenn du ko ko tere dégg nga de su ko defee nee na wali xëy ni man wali xëy ni man ñeel na jaam boo xam ni ñeel na lu dul jaam boo xam ne aussi digal na loo ñeel ko it maanaam jaam bu ñu digalul yaxantu it ñeel na ko xaboolu nangu may bi laay si ci lu dul digalal sanga ba wala xajaru yiir alay ci jaam bu ñu digal yaxantu neel kalfuri ni ko woon ci gor la maanaam bu ameelee bor nit dañ koy yiir nekk ñu yére woon maanaam gor be maanaam falas ko woo xisa jàttar mi maa ci lépp loo xam ne dee di nekk na ci loxoom waaye mu sawla soo doonte ay umu wala tam la des na ko jël mu ne kat it ni koy mayam des na ko jël bu ñu ko yiiree maanaam boo xam ne ñu ngi koy falas mu ne waa jaam yàlla ah xanaa ba nga déggee ay mayam des na ko nangu in mu ni ha ndem mayaat na ko lii day neen ngir bor ba kon booba lañ koy jël aw wala moom kay des na ko nangu mut la xam moo xam dañ ko koo mayoon ngir bor ba wala dañ ko koo mayoon noonu rek taawi laa ni am na ñaar jëm tan waaye laa xale si waxuma xale yi lam doon yaxantoo nag suñ ko yiree kenn du ko jël loola sang baa ko moom wala xabat yi baatu jàmba buñ ko yiree kenn du ko fayoo dañ lam yëkkun doonte nekkul woon dégg nga de wa in lam yëkkun ndéem nekkul xarimun aji fayu xarimun di aji leb wa in lam yëkkun ndéem nekkul moom jàmm bu ñu digal yaxantu xarimun di boroomi bor fakka xëri moog jàmm boo xam ni digaluñ ko yaxantu ñooyam ci sang ba sañ naa nangu alalam dégg nga de ak yu demee noonu mu ne walaay makk lu déggul jàppandal ci muyun jaamu si muyu mën taji nañ ci yaxantu ci ka xam ne tul demee ci sàngara ni tajana dem yaxantu na di say di ñeel sang ba wa ilaa dem yaxantulul sang ba nag fa xaw laa ni am na ñaari wax ci jaamu si muyu des na ko jàppandal mu yaxantoo sàngara ak yu demee noonu nga ni wa def na yir ba tey ala mari din bokk na ci ñu ñu jël aji feebar ak ma koo xam ne a atte na tibb docteur bi kay sirma ci bari dee bi ci moom bépp feebar boo xam ne dañu ko ko feebar dee ni ki cancer kon nag ka zallin ni ki cancer mu ngoog kon su boobaa da nga naan ku ko feebar dañ lay yiir lu to soppandiku ci sa alal wa xawlan jin ak lañ tuddee paralysé mooy woowu wat wa huma ak feebaru tàngoor xam yéen ujaay ji dëgër kooku moom itam def na la yiir wa xaamilin ak istitatin ak ku ëmb ba am juróom benn weer dañ koy yiir wa ma boosin ak ku ñu tëj li xat li ngir rey dañ koy yiir aw li xat in wala ngir dog in koy fa neem ragaleex ne almawtu deega buñ ko dogee kooku dañ koy yiir wa xaajan aji teew saf fa koo xam ne teewee ne alqitaala xeex ba dégg nga de ku teewee sappal kitaab waa ajiri sappal kitaab ak aji teewee sappal xeex dañ koy yéen ndax mën naa dee ci xeex ba waaye laaka jare bi nga ko mul demee ne ki feebaru ràmm rek kooku la ci ëpp mooy dañ cay mucc ba mu laaj jin ku ñu lëggal ci berin ci géej li ëpp dañ cay mucc dégg nga de wala asal doonte amoon na alxawlu tiit ma def na ko yiir nag ci xëy ni moo na ci ba nga déggee def na yiir aji feebar joo xam ne docteur nee na ku ko wopp da ngay dee ci xëy ni moo na ci ci loolu coonoom de maanaam ay ordonnance am ak la muy lekk ak la muy fajoo loolu kenn du ko ci yéen wata daawi yi mu ngoog ak i ordonnance am mooy saafaraam kenn du ko ci yéen wa mu awatin ak wattalante maali guy ko jóg alal maanaam wattalante ak alal kenn du ko ci yéen da nga de ni ki jaay dara wala mu leb dara wala mu nandalante bi demee noonu woo ke fa taxawaleef na tabaroo ay coobareem ay coobareem def na ko taxawal ilaali maalin dara alal da nga de wam bu fekkee nag coobare yi mi taxawal dara ilaali maalin dara maanaam alal boo déggee bu dee alal joo xam ne daf maa mënu jul ñu wóolu woo moom ak akaaru mooy akaar kooku nag bu ko coobaree woo duñ ko taxawal fayin maa indeen deena ni ki dafa jël akaaram may ko nit famin sulu si mu génn sulu si alalam wa ilaa ndeem nga xam ne deewul nag ni ki dafa wér ma daa wéy la mu coobaree woon dégg nga de nga ne wa def na yére ala sawjati ci jabar li saw jaa ñeel jëkkëram jabar it jëkkëram sax ni koo yére wala abdan doonte jëkkër ja jaam la ci tabaru coobareem saadam goo xam ne ëpp na ala sulu saak sulusu alalam jigéen bu coobaree la sulus alalam jëkkëram sax ni koo yére waaye bi kafaalatin doonte ci warul la nga xam ne dafa dem gàddu ni lépp sulusu alalam jëkkëram sax ni koo yére wa fi iqraa daa mi ci lebleem moom jigéen lépp sulusu alalam ndax jëkkëram sax ni ko saa yére bu leblee lépp sulusu alalam ni ko doo ko def am sax ni ko saa yére xaw laa ni am na ñaari wax nga ni waxuwa moom coobare jigéen lépp sulusu alalam jaay sun aji wéy la ataa yu rodd mbata delloo ko sama daa wéet na inam bu ko jëkkër ja delloo nag mu door a dellu sama daa wéet na coobare jigéen lépp sulus alalam inam yoloom dem xamoo fu ko ataa saa yemat ba mu tagaw ndaw si joxe ñu lépp sulus alalam xamoo ko ba mu tagawu tax ci yow day wéy aw maata wala dee ahaduma kenn ñoom ñaar day wéy te mu di leen réer ci wéy ga ka it kenn abdi nit gorelu jaam jaam bu goreel woo faa day ne ak fay bor ci koo xam ne dafa amee nit lu peeg alalam mu dem fay bor keneen ci lu dul ndigalal ka mu ameel du tey dina wéy wala hoo ñan la jëkkër dadul jani delloo lépp ndaw sa danga naan wala woñal la jëkkër raddul jam yi delloo lépp la ndaw sa coobare wu woon suñ tabara at ndeyam coobare wu na bi saa yi din ci lu ëpp sulusu alalam moom jigéen jëkkër ja sañ naa delloo lépp dool ni lu ëpp sulusu ba rek lay delloo lépp bu ko neexee walay sa laa de di ñeel ndaw sa nag tabaru un coobare ci kanam tuuti ila ba du sulusi gannaaw bu coobare wu sulusam dootu sañ a coobare wu ilaa an yëpp dëndare boo yàgg na sëriñ bi nee na baabul sulhu ci sari am mooy tuxu ci sa àq watte ko leneen wala nga toxu ci sa boote watte ko leneen ngir yëkkati xëccoo loolu mooy sulhu yàlla nag nee na ci alquran wa sulhu xayru sëriñ bi nee na asulhu yéwén loo ala xayri mu daxaa ci lu dul mu daxaa bi yiima bayhun benn muy njaay aw ijaatun wala muy yoole boo déggee mu daxee bii mooy da nga ni maa moom lii kii ne la déedéet moomoo ko walbati ko nangu laa jox dara nga nangu kon njaay la dangaa jaay loola jënd la mu la jox aha ni ki da nga ko ni maa moom sa fas wi mun la déedéet ba mujj mun la waaw danaa la jox fukki junni da nga bàyyi nga ni waaw njaay nga ko aw ijaatun wala yoole ni ki dangaa woote ne maa moom lee mu ne la waaw waaye kaay dëkk ci sama tabax bi fukki fan ak juróom wala weer nga d'accord kooku yoole la nga ni waye leen loo ala ba di ci leen bor ba yi batun may la su fekkee tey da nga ko ni ameel nga ma junni mu ni déedéet wala mu nangu ba mujj mun la nan yéwén loo ci juróomi téeméer nga nangu kooku it may la loolu nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam def loo na ko ku ñuy wax Kaab ibnu Malik ci benn waay bu ko amee noonu bor ñu koy wax ibnu Hadi Adradin Kaab fayu ko ca jàkkale seeni baat ñoom ñaar yëkkatiku xuloo ba jàpp ca kaw yonent bi dégg ko fekk ma ngi ci biir néegam mu génn ba mu yëkkatee rido ba moom sallallahu alayhi wa sallam daal di woone yeey Kaab mu ne ko naam mu ne ko nii maanaam wàññil Kaab ne ko yaa Rasulullah jëf naa li nga wax mu ne waaje jógal nga fay ko kon sulhu boobu yonent bi def na ko yoonam wajaata dagal na yéwén loo àndee ngeen ci bor bi ma lépp loo xam ne yu baaw def na jaay bor ba bi ci jënde loola kon nag lu dagan a jaay mooy marchandise ak lu ndëkk nga jaay ko jënde ay dërëm wala ay dinaar kooku dagan na waaye nag lu daganu la jaay jënde lañu la ñu yéwén loola loola du dagan ni ki tey nga bëgg amee nit xaalis bëgg a yéwén loogu moom wurus wu jëmub bi wala nga amee moom wurus woo xam ne dafa jëmub bi bëgg a jënde wurus wu teew bëgg a jënde moom xaalis bu jëmub bi kooku tar nga ne wa dagan na yéwén loo an saa bin ci wurus bi wari xin jënde xaalis dégg nga de kooku dagan na maanaam waaye amee na bor wurus ngeen yëwen loo ci xaalis waag ci ak safaan ba waaye in allah ndem ay ay nañu ñoom ñaar wax mu jëlee te gaayo ko gis nga li ma la waxoon na bor ya ay te ñu gaayo ko nag waaye yeexe ga moom lañ tay bañ mu di leen réel ci loolu mu ni ko meeti dinaar yi naka téeméeri dinaar dagan na wa dirhamin akub dërëm nga yëwen loo ci an mi atay hima wala seen ñaari téeméer waa ji dala amee ñaari téeméer téeméeri dinaar ak téeméeri dërëm jox na téeméeri dinaar ak benn dërëm nga yëwen loo moom loola bàyyi ñaar téeméer kooku wér na wa dagan na yëwen loo ngay wax ala ixtidaayin maanaam ci jotu min yeminin ci ngiñ dégg nga de maanaam yéwén loo jot ci ngiñ mooy waaji dala ne ameel nga ma bépp woote bu amul seede da ngaa war a giñ kon nag nga yëkkati dara jox ko ngir bañ a giñ kooku dagal aw su kóote wala noppi ameel na nga nga ni cell ba mujj nga yëkkati jox ko wér na awin kaari wala weddi dégg nga de ameel nga ma nga weddi ba mujj nga xam ni ah daal nekk di xuloo ko def yëpp jaru ko nga yëkkati dara ne ko nan yéwén loo bokk ci lii wér na ba nga déggee nag dagal na yéwén loo in jaasa ndeem dagal na yéwén loo ga alaa dax waa kulin ci woote képp wala saayir ukki ak saayir atte ba mu wattandiku lu dagan ci seen woote te dagalul ci saayir atte ba waa ji da nga ko ni ameel nga ma téeméeri dërëm yu teew dégg nga de mu weddi wala mu noppi mu ne waaye nag man dama ba mujj mun la waaw léegi damaa bëgg a yëlandoo yow ci téeméer bu jëmub dig loolu day dagal na ci seen woote waaye dagalu ci saayus ukkumu luy tax saayus ukkumu bi dagalu ci mooy dañu naan léegi comme da nga koo yeexe téeméer bi léegi nangu na nga yeexe ko ko da nga koo lebal ndax tey la la war la fay yow tey nga tey nga wax ni tey la la war la fay dégg nga de li tax nag kon da nga koo yeexe luy lu yeexe gi nag bijjël na la njëriñ ndax njëriñ lim la bijjël mooy waa ji nga woo te ni ko ameel nga ma su nanguwul woon a giñ yow da ngaa war a giñ te ngiñ loolee nga war na giñ kon day rot yow itam yow mu dee te ngiñ loolee rot jëriñu la ñu ne kon nag loolu salafu dégg nga de di siyaadati la dégg nga de kon nag loolu salafu njëjjuru man faatali maanaam lépp buy bi ji njëriñ la kon nag su boobaa loolu dañ koy bañ dégg nga de ndax jëriñ gi mooy rotal na la ngiñ loo xam ne bu waa ji ñun ñun da nga ko giñ nga ni wala boo dagalul ci seen woote far sax dégg nga de ni ki tey da nga ko ni ameel nga ma ñam utukkee ci njaay ni ki da nga ko ni jox naa la junni nga ameel ma bërigo ceeb wala bërigo pet mu wedd wala mu noppi ba mujj mun la waaw nañu yëwén loo ci bërigoon ñaar fukki kilo dégg nga de mu jëmub bi ñun la ah loolu kat daganul lu tax ñu ne da su boobaa li tax daganul ci seen woote far mooy mi ngi mel ne jaay ñam jënd ñam bu ko gën a bari kooku moom ñëpp xam nañu dagalu kon nag su boobaa loolu moom daganul ci seen woote waxuma laak saari ukkum walaa yéelu daganul alal ju ñu yëwén loo ja li saa li mi ñeel aji tooñ waa ji dalaa ameel bor rek lànk bañ laa fay ba mujj nga yëwén loogu moom la mu ngëpp ci alal ja la la nga yëwén loogu moom ah dagalul ci moom maanaam dagalul ci digganteem ak yàlla ndax loolu yonent bi wax na ko ci benn xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na da ngeen di xuloo ci jëm ci man te am na ci ñu gën a fasaa seen morom waaye bis képp ku dikk ba ma atteel la loo xam ni sa neexug lamiñ ak sa jubum xel moo tax ma atteel la ko fa innama aqta'u loo xit atin mu ne neer dama laa dogal aw dogeetu safara kon nag ki nga xam ne dafa tooñ nit rek mu di ko fayu mu lànk ba mujj mu dem di yëgal loogu moom ngir bëgg bor ba du mat kooku lam te dagalul falaw aqara doonte si doon na moom aji tooñ jooju ba doo gannaaw ba ne ah man de ameel naa ko waaye dama ko tooñ rek ngir bëgg mu yëwén loogu man falowoo ñeel na aji yëwén looju naq doo ak fiyam ci kanam su ko defee falowoo ñeel na ku ñu tooñ ka naq doo ak fiyam bu ko neexee mu ne man firi naa ko ci kanam tuuti aw say rek wala seede bay natun ay seede lan yàlla daa yoo xam ne xamu ko tey yow waa ji ameel na la bor ndekete am ngay seede waaye xamoo ko ba nga yëwén loogu moom ba noppi rek say seede ni jaalañ falowoo ñeel na ko naq doo firi yëwén loogu aw sada wala mu seer la wax la na mu xam ne dafa ne ah seede leen ni maa ngi yëwén loo de waaye ne ànd hoona ka moom kat yokkoo mu dana taxaw baa ci da nga di ay seedeem bis bu samay seede ñëwee kat su boobaa danaa danaa leen indi kooku danaa bu te seede ñëwee fa loo ñëw ne ko naq doo firi yëleen dooga aw wajada wala mu deg wasiqatan bank ba ba wasiqatu hoo bank ba nga xam ne moom la bindoon àq ja ba dohoo gannaaw ba mu yëleen loo ba noppi waa ji da dalaa ameel nga bind ko bank ba réer la nga dajeeg moom fayu ko mu lànk bu mujj nga ni ko nan yëleen loo yàlla dogal ba ngeen yëleen loo ba noppi nga gis bank ba fa loo ñëw ne ko naq doo firi yëleen dooga mu jëleen leen ci falahoo naqaduhoo bu ko neexee firi ko kaman ni ki koo xam ne lam yulun feeñalul ay seedeem ci aakim waa ji ameel na la bor nga yóbbu ko ci kanamu aakim fekk say seede nekkuñu fi nga bañ leen a feeñal yéwén loogu moom ba noppi say seede ñibbisi bu la neexee nga dem andi say seede mu fay la aw yokkiru wala muy tudd si ren ci yow moom aji tooñ ji bu ngeen wéetee rek mu ne waaw ameel naa la waaye bu ngeen dikkee ci mbooloo mu ne amee lu ma la dara faqat walif xalaaniya faqat walif ci lu feeñ kon it dagan na nga yéwén loogu moom bu ko defee ana la seen ci wax ji gën a rafet waaye bu ko defee dagan na nga fexee nax ko ba mu dem ca mbooloo ma ba tudd nga firi yéwén looga fihima ca ba muy dégg nga de ci ñaar yooyu yëpp mo fihima ji maanaam mooy ñaari masala yi mooy ba nga bañee feeñal say seede ak ba nga xamee ni mu ngi tudd ci sew dégg nga waaye laa leen ali moo ko mëneem xam la di béy na ci ci seedeem wala mu gis it seede wu ko nag ah tey soo xamee ne am ngay seede dem andi woo leen ba yëwén loogu moom su boobaa nag bu leen indee te duñ ko nangu ali daa wala mu wooyee di a fàcci sànkuk bong ba fakkee la waxees loo ñoon ko xaq ko sa àq de saabisul aji sax la waaye fàtti dikkal bii ci bong bi ñu bindoon àq bi fa saalaa mu yëwén loo su ma wajëloo topp mu daj ko kooku dootu sañ a firi yëwén loo ga nga ne ba dagan wax boobu yam foofu ba dagan na yëwén loo andi saw jitiñ ci doon ab jabar min xam li mu tukkee ci marchandise wa warixin ak xaalis wa saadin ak wurus waa ji dee na tey bàyyi juróom-ñett fukki dinaar ak juróom-ñett fukki dërëm ak juróom-ñett fukki malaat jabar ji war na cee doon sumun kon dagan na mu jël juróom-ñett ci juróom-ñett fukki dinaar yi fukki dinaar rek bàyyi la ci def loolu mooy yëwen loo mi saabin moo tax mu mu mu yëwen loo moom ndaw sax bi saabin ci wurus min tarki si mu tukkee ci mbatteef ma xadara ma wala caa kem donoom min hu ca wurus ma te mooy mu jël ci fukki dinaar fa àqala wala lu ko gën a néew ni ki juróom ñetti dinaar aw ak sar wala lu gën a bari waaye nag in xaalis ndéem nee na dara imu dërëm ya la fekk nag dërëm ya néew waaw kay dégg nga de waaye laa min xëy ria waxuma wurus wu tukkee ci fu dul mbatteef ma dagalul mut la xal moo xam wurus lay yëwen loo wala xaalis lay yëwen loo dagalul sëriñ bi nee na ilaa bi abdin dana ci marchandise marchandise de moom dagal na yéwén loo mu tukkeewul ca mbatteef ma in xarafa ndem xam nañu ñoom ñaar nag dégg nga de ñaari way yéwén loo ñu bu ñuy yéwén loo dégg nga de nañu xam jamee xaa mbooleem marchandise ma mbooleem mbatteef ma lépp maanaam ndaw sa yé ñaar ña yéwén loo ca mbatteef ma nañu xam mbatteef ma lépp wala boog na lépp teew ngay wax maanaam ndaw si balaa yéwén loo ci donoom na fekk mbatteef mi lépp teew moom aji yéwén loo ji ak ka mu yéwén loolu na mbatteef ma lépp teew waxadara te wa dégg nga de waxadara te mu teewit nag dégg nga de maanaam boo déggee waxadara mu teew mbooleem mbatteef ma wala boog am na lu teewul dégg nga de waa xara waaye tudd na almadinu aji lab ja ah tudd na bor ba te nangu ni dana ko mën a fay waaw su fekkee am na ci mbëttis mi ku ci amee bor na teew te nangu ni waxadara te mu teew na teew te nangu ni dana ko mën a fay kooku it su boobaa dagal na yéwén loo li mu bëgg a wax daal ci tënk mooy mbëttis bépp mu ñu yéwén loo na lépp teew wala ku ci amee bor it na teew te nangu ni mën na koo fay sëriñ bi nee na wa dagal na yéwén loo an diraay na ci ay dërëm waa din ak marchandise turikaay yoo xam ne bayeef na leen bi saa bin ci wurus waaw waaw waa ji dafa dee bàyyi ay dërëm ak marchandise su boobaa dagal nañu yéwén loo ku bokk ca dolo yi bi saa bin ci wurus te bay ni ko woon njaay waaye wasal seen ak sarax na lépp di benn dinaar waaye wala bu ëppee benn dinaar it na daje ci benn dinaar waaw waaw ka ñu yéwén loog la ñu yéwén loog moom ci wurus bu mu ëpp benn dinaar wala bu ko ëppee na daje ci benn dinaar wayn kaan ndem nekk ne faa ci mbëccëg ma doy nun bor fa ka bayi mi ngi mel ne jaay bor jaay bor bu ma din teewee tudd woomal rek mu dagal ne dafa dagal na yéwén lu anam din ci ci jam-jamu tey bi maa ci loo xam ne xàlla néew na ba ëpp maanaam lu xàlla néew na ba manqué dayee wakkasoro wala mu bari ba ëpp dayee maanaam waa ji dafa laa jam jam jamu tey xam nga jam jamu tey fa yoo ci war bu la neexee nga yéwén loog moom ci lu manqué dayee bu la neexee nga yéwén loog moom ci lu ëpp dayee ndax yéwén loog moom juboo la rek waaye laa xarinu xuma xaral daganul yéwén loo karit leen ne karital min saati mu tukkee ci gàtt bu waa ji amel na la bor nga ni ko peesal ma ci gàtt bu benn kilo kooku daganul ndax xamuñu yàpp wa ah fet gan la lay dagale wa dagal na yéwén loo ba tey wala sii day nin ñan la borom bor man xoo tere yéwén tere tere tere ma din min hu ci yéwén loo maanaam tey nit ki dalaa amel xaalis bu bari boo xam ne teeg na alalam kooku bu la neexee nga tere ko yëwén loo ni ko doo yëwén loo yow waaye lu doon dem delloo sëf na mu xaw ma lu ñuy xayma day bin ci saabas ayib te fekk da ngaa yëwén loo woon ca lu ñuy xayma la rojee delof di xaymati bi xaymati waa ji dalaa amel ba nga ñëw ngeen yëwén loo mu jox la fasam wala mu jox la jaamam nga dikk fekk ci ayib su boobaa nga nga dellu ci xaymay loola rojee bi xaymati ci kanam tuuti aw istiqa wala yeyeef loola rojee delof di xaymati ci xayam ba tey façon la joxoon wala jàmb bu ñu ko yeyee nga dellu ci xayma ji te nit kaa yi nekk sëñ jigéen dégg nga de yoon dafa ne bu fekkee tey da ngaa takk jabar jox ko can yàlla dogal ñu ñooy can nga ci loxoom mu dellu ci xayma can nga waxu leen ak suñu koo jigéen ji dafa suñu koo yow ci lu ñuy xayma ñu leen loola ci sa loxo dégg nga dellu ci xayma loolu mu fay la ko wa in kat wax boobu yem foofu nga ne wa in katala ndem rey na jamaatun mbooloo aw xat fa wala ñu dog jaa sa dagan na sulu kulin yëwén loo képp ci ñoom wala afu ak jégal an walif ñen naña dégg nga de jégal ñen naña bu ko defee xisaas ña ca def maanaam mbooloo ànd nañu rey nit su boobaa mbokki kañu lay may yoon may na leen ñu yëwén loon ñen ñee ñu jégal leen bu leen neexee sax ñu xisaar dégg nga de sëriñ bi nee na wa in saalaha ndeen yéwén loola maqtooun ku ñu dog su ma nu siya topp royaa teg jam jamba maanaam waa ji dañoo dagg loxoom mu dem yéwén loo ka ko dagg yàlla dogal jam jamba royaat samaate mu dee fa lil wàl yi ñeel na kilifa ga raddoo ak delloom ci kanam tuuti delloo yéwén looga ni kon nag comme waa ji dee na delloo na sal naa delloo yéwén looga wal kat lu ak rey ka ko reyoon di xasaamatin ci giñoo waaye day giñoo de dem giñ juróom fukki ngiñ ne jam jam bii dagg-dagg bii ko waaji dagg moo ko rey bu ko defee bu dee dagg-daggu tey la ñu rey waaja waaye nag laalu hoo waxuma aji yéwén looja de aji yéwén looja moom dégg nga de kooku moom bu la neexee nga ni déedéet laa la hoo waxuma aji dog aji dog moom sañta delloo yéwén looga waaw la hoo ji mi ngi dellu ci aji dog laa la hoo waxuma aji dog wala caax si naka jàpp seen dëye tan dëye bu fekkee tey day dagg-dagg boo xam ne njuumte la ah ñu yéwén loo woon yàlla dogal waaja dee ca ay mbokkam sañ ñoo giñoo ñu jox leen dëye seen xatee ci njuumte waaw waaw nga ne wayen waaja ba ndeem sax na jur un jam-jam ci kanam tuuti am dan ci tey fa taala amu yéwén loo fi mari di ci feebaram ba biar si ca fay ga ca wax aw xëy yi wala leneen su ma maata topp dee min mari di ci feebaram ba dégg nga de su boobaa jaasa dagal na wala ci matu war na kon nag da nga naan wa in sabat ndem tax na jur um jam-jam li mari din ñal aji feebar ala rajulin waral góor xam dan ci tey fasaala amu yéwén loo ba noppi su mari di ci woppam bi tey waa ji dafa feebar ñu jam ko jam yàlla dogal mu yéwén loo ci biir feebar bi biar si moo xam tay ga ca war la aw xëy yi wala leneen waaye daal sama maat topp mu dee min mari di ci woppam ja jaasa dagal na yéwén looga wala ci matu war na mu ne waa jam yàlla bare bu jaasa wala ci ma mut la xam moo xam ne yéwén loo nañ ca jam jam ba dong wala dañoo yëwén loo ca jam-jam ba ak la jam-jam bay mujj ëllëg maanaam ba mu yëwén loo waaja da ko ne ak fu mu mën a mujj ëllëg d'accord nga mu ne waaw aw wala moom kay xanaa ba muy jaasa wala si ma in saala ndeen yëwén loolu ani jam-jam ba dong waaye laa maa waxuma la xam ne yëwul dina mujj ilay jëm ca loola su dee looloo kay kon yëwén loogu du mën a dagal taawi laa ni am na ñaari jëm wax boobu yem foofu nga ne wa in saala ndeen yëwén loola ahadu wal ni kenn ñaari kilifa tey waaji dañoo rey seen mbokk ñoom ñaar la dégg nga de kenn ka ñëw yëwén loo ak ka ko rey fayil aaxiri ñeen la morom du xoolu tabbi maaw ànd ak moom su fekkee lam ko jox xaalis la sañ naa ñëw ni ko noo koy séddoo waaye boobaa nag wasaqatu rek na alkat lu rey ga de waaw waaw kenn dootu rey ko ka nga xam ne moo reyal waaje mu nekk dafa waake nit ki woote sa yow kilifa dam su lu hoo yéwén loo jaani faan kare jaani weddi loolu daf laa nirool ni saqata da ko nirool ci rotu maanaam rey gu rot rey gi nga xam ne rot la tey yow kilifa dam gi da ngaa yéwén loo jaani da ngaa woote ni jaan yi dañoo yëwen loo jaan yi ne déedéet da nga maa jégal rey ga moom rot la kenn dootu rey jaan yi xanaa nag ñu seet ba xam nga ne wa in saalaan deen yëwen loo na mu xiroon aju tudd bi xata in ci reyu xatawu bi maa lii ci alalam la si ma war na ko léegi waa ji dafa tudd diw moo ko rey reyu xatawu dem yëwen loo ba noppi ah yëwen loo ci alalam la si ma war na ko kon nag la mu yëwen loo war na mu ne waa jaam yàlla mut la xam la mu jëñ ak la mu jëñ maanaam la mu joxeeg la mu joxeegul aw wala moom kay dana ko war maa dafa la mu jañ rek waaye la mu jënegul du ko war ndax ay xaaqilaam ñoo war a def daya ja caawilaani am na ñaari jamtal luy wax bi waa ji dafa rey reyu njuumte te réere woon ni ku rey reyu njuumte waroo def sa daya say aaxilaa ko war a def léegi mu dem yéwénloo ci alalam ba noppi ñu ne ko ah yow de kon reyu njuumte la say daya say say aaxila ñoo ko war a def kon nag su boobaa yoon nee na xilaaf bi ñi neñ la mu yëleen loo woon dana war ñu ne déedéet war ko su ko neexee ma maanaam mu bàyyi ay bokkam ñëw da nga de joxe xaqi la xaqi la ba ñëw joxe dayee ji sëriñ bi nee na waaye laan sabatu xuma dem sax la jam-jam su fekkee jam-jam dama doon muqirun moo tudd waaye laan sabatu xuma dem sax la ci seede de su boobaa moom ah jam-jam ba moom bu saxee ci seede yëleen alali yëleen yëleen loo ko waru bu ko neexee mu firi ko wa jay la te mu réer lu soo moo waru dayee ja ah wa ala fa te mu biñ kon su boobaa waru da delloof ko la mu yëwén loo woon in tala ba nem sàkk woon na bii tuli ba nem sàkko foon na ko bii ci lu ñu yëwén loo la mut la xan moo xam des na ci loxoy kilifa ya wala desul ci loxoy kilifa ya aw tala boo wala mu sàkkoon ko boppam wójudee te fekkees ko fa même bu fekkoon moo sàkku yëwén looga kon su boobaa buñu fa fekkee alal ja dañ ko koy delloo mu ngoog kon nag rey goo xam ne dafa sax ci ay seede kooku moom boo yëwén loo ci sa alali soo giñee ne xaw ma ko woon nga delloo la la nga yëwén loo woon waaw waaw sëriñ wa in saalaxa ndeem yëwén loola ahadu wala deen kenn ñaari doon seen bàyyi deena bàyyi ko ko ameel bor kenn ka dem yëwén loo waari seen ñaar ñu di way doon fali saa yi bii ci kanam tuuti ñeel na morom ma du xoolu tabbi ka nga xam ne mooy jenn doom ja te ñaa ñëw la la jenn doom ja yéwén loo mu ànd ko mu séddoo kooku moom ñu ne xanaa boobu day yéwén loo ci iqraar mu ni wayin an inkaar yi donte yéwén loo woon gu bàyyi ko ci weddi nga xam ni kañu ni ameel na seen bàyyi dafa weddi woon ba mujj mu yéwén loo fali saa yi bii ñeel na morom ma du xoolu tabbi ci kanam sëriñ bi ne nag ak ci nag ak lahuma jën ñu ne ñoom ñaar ci kitaab bi ñu bind ko ci benn téere tey waa ji da leen ameel téeméer yéen ñaar bind ko ci benn téere ni ameel naa diw ak diw téeméer kenn ku yéwén loo sa morom sañ naa tàbbi aw mut la xen wala muy àq ju ñu boyal dafa bind rek ne ameel naa diw ak diw kon su boobaa kenn ku yéwén loo sa morom sañ naa tàbbi ina ta aman dara ñam de moom bu dee ñam de la leen ameeloon fatara dun am nañ jàng déngi fii ci dana sañ a tàbbi ak ñàkk daa tàbbi ci kanam tuuti ñu ne ta ñu ne faw mu ne ilaa yes tasa ndare boo gën na ah kenn ci ñoom waaye suru mu gàntal ilay jëm ca morom ma fil xuróoju ca génn ga ba muy dem di fayu ji dafa woo morom ma ne ko man de maa ngi fayu ji kanu ameeloon doo ñëw fayam tani umu bañ kon nag lépp lu mu yëwén loo dootu sañ tàbbi ci kanam tuuti awil wakaalati wala mu ne kaay wakil fayam tani umu bañ ba tey dootu sañ tàbbi me ni wa in lam yëkkun dem nekkul donte nekku fa woon nag xayru muqtadi lu dul lu ñu fa yoola donte ba nga xamee ni waaja nga xam ne dem na ba mu demee la ko waaja jox loolu dong nga fa nekkoon it bu dikkee morom ma du sañ a tabbi aw yekkoona wala nekk aq ja di kitaabe ni ci ñaari téere nga xam ne dafa bind kële fële akam bind kële fële akam ku yëleen loo sa morom du sañ a tabbi waaw wa fi maami ci loo xam ne lay sa lahumaa de di ñe leen ñoom ñaar wa ko ci ba ta bindee ko bi kitaabin ci benn benn téere waaw tey su fekkee ni ñoom ñaar yëgoowuñ kenn ku ne dalaa ameel waaye mu bind ci benn téere ne ameel naa diw ak diw nangam dégg nga de ndax kenn ku yëleen loo sa morom dana sañ a tabbi ni ki tey dalaa ameel juróom fukk ameel kee juróom fukk boole rek ne ameel naa diw ak diw téeméer kenn ku yëleen loo sa morom dana tabbi ak ña daa tabbi xaw laa ñu am na ñaari wax fekk nag yëgoogu leen mu ne walaa joxoo deetug dellu nag aha ñeel bokkaale ba yéen xtaara ndem tànn na maa la nga xam ne alal xarim war na xarim tey nag waa ji da leen a ameel téeméer yow nga dem yëleen loo sa morom ne ah man de lam sama wàll laa tànn dootu dellu si ci li nga li nga yëleen loo déedéet sëriñ bi nee na waleen alaka ndem alko donte alko woon waaw waaw donte nga xam ne si donte alko woon na xarim mooy ko ñuy fayu ko donte deewoon na it yow moom dootoo dellu ci ka yéwén loo woon sëriñ bi nee na wayin saalaa ndem yéwén loo na ala sabri ci fukk min xam tani ci juróom fukkam fa lil axiri ña la morom ma islaamuha jébbal ko fukk ya aw ak xam tatin wala mu jàpp ca juróom min sari ci ci bokkaaleem wala jëw te mu dellu waral xarim bi xam tatin ci juróom wa arbahin ak ñeen fukk aa waa ji da leen amee téeméer nga dem jubóog moom yow yéwén loo ci juróom fukk ñëw ci fukk ñëw su boobaa moom sañ sa ki nga bokkaale sañ naa jël ci yow juróom bu jëlee ci yow juróom dellu ca ka nga xam ne moo leen amel mu jox ko ñeent fukk ak juróom wayaa ko su jàpp àllaaxaru moroom moom yi nga xam ne mooy ki yëwen loo ji woon am sa toon juróom moom mu defee juróom kese nga ni wayen saalaa ndéem yëwen loo na bi mu àqarin ci lu ñuy yeexe an mu salakin walis lu ñuy alak waa ji dafa alak sa sira walbati ku bëgg a yëwen loo lu ñuy yeexe la nga gis du dagan yëwen loo ko ilaa de dra iman dada ci ay dërëm yoo xam ni ka xëymay ti day mel ne xaymay lu ñu alak la fàq la wala ko gën a néew aw saabin wala wurus kasaalika naka woon ca xayma jo wala lu ko gën a néew nga ni waxoo moom nag loolee ñu yëwen loo mi maa bokk ci nga xam ne yu baaw dana dagan a jaay waxoo moom loolee ñu alak mi maa bokk ci la nga xam ne yu baaw dana dagan a jaay bii jënd lu ñu yëwén loola misaalam ka àddina ni ki jaam aada xin bu daji daw waaji dafa fëkk sab jaam jaam ba dawee ci loxoom dagan na mu yëwén looga yow ci ay dërëm wala dinaar yoo xam ne ñoo gën a toll na nga xëy may jaam ba képp yem ca wala lu ko gën a néew loolu ngay wax wax boobu yomb mu ne wayn saalaha ndéem yëwén loola bi sab seen cib xaaj an moo di a tey walib ñaari xañ-xaañi moo di am din benn bay tey waxate in benn bay njuumti fa supatu ndab ba day ca bokkaaleem bini fi xiimati fekk si nekk na ca genn wàllu xëy may xaaj ba tolloo moo di aw tey wa wa bi deeti moo deeti ak ca deeyi moo di ha dégg nga tolloog moo di xaw mooy wa tey waa ji dafa jam nit jam-jam moo di ha ci tey jam nit jam-jam moo di ha ci mooy wëlbatiku yëwén loog moom ci xaaju pàkkam kam bokkal pàkk ba bëgg a dab kon su boobaa ka muy jam jam jam moo di xab tay ba dañuy seet luy genn wàllu xaymay pàkk ba ñu ne nangam bokkaaleem jox ko loola moom lay dabe ka nga xam ne moom la jam jam jam moo di xaw mooy wa ñu ni waaw lan mooy déye moo di xaw mooy ñu ni déye moo di xaw mooy day mooy juróomi gëléem mu yëkkati juróomi gëléem jox ko dab genn wàllu pàkk ba ci moom mu ne wax jam yàlla kasaalika naka nii lañ koy def ine xalafal yawut ne ajurhu jam jam ba ni ki dafa dagg loxom nit ci tey rey nit ci mooy dem yéwén loo ñoom ci genn wàllu xaaju pàkkam kon it su bokkaaleem bëggee dab dañuy xaaj pàkk ba ci digg ba ni genn wàll gii muy dabe ka mu dagg loxoom ci tey luy xay may pàkk bi ñu ne nangam mu yëkkati xay may pàkk ba jox ko dabe loola ka mu rey bakkanam ci mooy ñu ne moom itam luy genn wàllu xay may pàkk bi ci def genn wàllu xay may tere bi ñu ne nangam mu yëkkati loola jox ko muy ndabam mu génn am moom kay bu fekkee jam-jam ya dafa wuute kenn du ko def ni ki noonu dañ naan dagg loxob tey lu ca war ñu ne juróomi téeméer juróomi téeméeri dinaar ñu ne bakkan bu ñu rey ci mooy lu ca war ñu ne junni dinaar ñu ne ah kon kay dee loxo bi mooy sulusu xaalis bi lépp boo ko boolee ndax mooy junni ak juróomi téeméer la kon dee dee loxo bi mooy sulus bi ñu ne kon nag nañ xaaj kër gi ñetti xaaj ki mu dagg loxoom ci tey ki mu dagg loxoom ci tey ñu ne luy dee loxo ñu ne juróomi téeméeri dinaar ñu ne luy dee bakkan bu ñu dagg bu ñu rey ci mooy ñu ne junniy dinaar ñu ne junniy dinaar juróomi téeméer kon juróomi téeméer mooy sulus bi kon su bokkaale bi bëggee dab dañuy xaaj kër gi ñaari teere bi dañ koy xaaj ñetti xaaj ki mu dagg loxoom mu yëkkati juróomi téeméeri dinaar jox ko ñu jox ko sulus bi mu dabee ko juróomi téeméeri dinaar sulus ba ki mu rey bakkanam ci mooy ñu ne ñaari teere pàkk bi ñaari xaaj yi luy dee bakkan ñu ne junniy dinaar bu bokkaaleem bëggee daab yëkkati junniy dinaar jox ko dégg nga de waaye kenn du ko def neen nanu jëkk ne taawilaan yi am na ñaari jëm tam baabul sartu awaale sartu soppil soppil mooy nit dalaa ameel bor yow itam nga ameel keneen nga yebal ko ca kala ameel ni ko demal mu fay la ay mbiram a ngi nii sartu awaale sartu gaddul re daal muheeli mooy nangu aji soppil ji yow mi ñu ameel wal muhaa wal muhaalu ak ku ñu soppil ka faqat walif muhaalu alihi waa ji fayu si na la nga ne ko ndax d'accord nga ma boole laaj diw moom itam dafa maa ameel lu toll ne sa bor mu ne d'accord naa soo nangoo moom mu nangu rek faqat walif mu alu alayhi kan koy yebal moom sart ni ci mu nangu kon ridaal mu xëyli wal mu xaalu wal mu xaal sartu ñaareel ba wasu bóot day ak saxuk bor na fekk kan koy yebal ameel la bor laa si min bor bu di aji war mu wattandiku bor bu gone amee wala safihu bor bu gone amee moom warul fayin ala moo dem xamal na ko nag bi adami ñàkk bor ba da nga ko ne ah maa ngi lay yebal sa diw de pour mu fay la li ma la ameel waaye nag kooku amee lu ma dara wasarata mu sart albaraata dañ talu waa ji ne d'accord na saxa wér na mu ne waa jàmm yàlla ba nga déggee ah wér na tey ka nga koy yebal amee lu la dara wér na xanaa ilaan gis la sa ndare boo falla seet na ko su fekkee kay dafa dem fekk waa ji ñu di ko falla kon kay sañ naa delti ci yow aw ya moo ta wala mu fekk mu dee kon kay sañ naa delti ci yow am moom kay dootu sañ a delti ci yow rek nga ne taawi daani am na ñaari jëm tamit bokk na ca sart ya wasixatuhaa ngay wax ak tëguk soppil ga wa bokk na ca sàtte ba tey xuloolu mu aalum bi ayu mu haalum bi ma bor bi nga xam ne da nga koo ameel nit di ko yebal ci keneen moom na heure na waxtoom jot dégg nga de wayen kitaabatan donte bidiwuñ jotoo la jaam bi nga xam ne day jotoog yow ameel la bidiw wér na mu sotti la ci ku ko ameel bor waaye laa alayhi sat ni ci ayu mu haalu alayhima maanaam ka nga koy yebal moom mën naa am bor bam la ameel jotagul waxtu saa wi day ne ni bokk na ca sàtte yemoo ñaari bor yi xadaran ci kem si fatal ak ci melo masalan daal bu fekkee da ngaa ameel nit di ko yebal ci keneen ku la ameel yow itam bor ya nañu dëppoo xadaran wa sifatan bu ñu ëppante wa fi taawuli mi ci sotteem alal addinaa ci gën jaa suufe ni ki tey waa ji ameel na la loo xam ne moo gën a suufe nga di fa yebal koo xam ne moom la nga ko ameel moo gën a kawe mu ndax kooku dagan na ak ñàkk gaa dagan te dun am nañ ci déng-déng dama ne woon wa an laa yakuna ak bu ñu nekkul ñaari bor yi ta amay ta aman di ñam ta amay ni nag moo doon siyaaxul kalam bi waaye ta aman masdar la masdar ma nes ni ko bañ a tasniya waaye ñaari bor yi ñam daganul nga di ko soppelante dégg nga de min bay mu tukkee ci njaay bu tukkee ci njaay rek daganul ni ki tey dangaa nit dalaa jaay ñam dégg nga de nga xam ne tey ameel na la ñam yow itam nga jaay keneen ñam ameel ko ñam kooku soppil dëgg ci waaye laakas foo waxuma wuññeem an si mati muhaalu alayhi wali baatu muhaalu alayhi ki ngay yebal mu ne la da nga may wuññil muhaalu alayhi ma ba xam ma xo baatam ameel na la wala ba xam woomal na wala woomalul waru la nga ne wayete awalu dina jëlal bi ku nag su boobaa xaqu muhaalu ak ku ñu soppil ka ala muhaalu alayhi war muhaalu alayhi waxtu woo xamee ni waa ji nangu na nga soppil ko ba sart yëpp daje su boobaa léegi àq ja tuxu na dem ca ka nga xam ne moom nga ko soppi waral ko te it am na fa doonte ñàkkoon na aw jaxada wala mu weddi bu boobaa kon léegi xaq ja tuxu na jëm ci moom ñu ne faaw mu ne ilaan yàlla man re boo xam ne al muhili muhil dif laa ci ñàkku mu alu ali faqat walif mu walif walif mu haal bu fekkee yow dong yaa xam ne ka nga ko yebal amul dara waaye moom xamu ko kon nag su boobaa sañ naa jël ci waaye nag wa ala sa giñat na moom mu haal dana giñ ala na fii ci dàq xam nga nag su boobaa nag dana giñ ne ah xaw ma woon muhil mooy giñ wa ala fa giñat na muhil ala na fii ci dàq ga dàq xam nga in su na dem jot na bii ci alil mu xam waa ji nga yebal ca kële dafa dem dikk ni la xamoon nga ni amul nga ni ko xaw ma ko woon kon su boobaa yow da nga giñ yow muhil falaw aala doon te soppi loon na bàyyi woon aji jaay ala mustarin waral aji jënd da ngaa jaay nit saw fas ci fukki junni dégg nga de yàlla dogal nga amel benn waaye fukki junni mu ñëw nga ne ko demal te kama jaay fasoo mu jox la bi samani ca njëgg su ma da topp delloo si fasoo bi ay binti saabas ayib waaja gis ci ayib delloo si ko lan tar parce que du firiku maanaam loolee nga xam ni moom ngeen soppil ga du firiku ci kanam tuuti maanaam kon su boobaa ka nga jaay façon bu ko joxee fukki junni dalay topp fukki junni rek donte delloo ci woon na fas wi ànd ak ayib aw siqa wala yeyeef loola wala fas wa dañ ko yeey ci loxoom ba tey lam tan fasix du firiku soppil ga waajam jox fukki junni moom mën naa continuer dem bu ko defee mu dina topp fukki junni am waxtu da tànneef nga nag xilaafu lu wuteeg loolu am na ñu ne ah kay soppil ga dana firiku nga ne woon xawul wax ja nag li muhil leen ñeel na muhil mooy aji soppil ji inu dee dem wayef na ali waral ko naf yu day ni dàq ba li mu ali ali ñeel mu xaalu ali yi léegi da ngaa ñëw mën la demal tëddiw mu fay la ameel na ma dégg nga de nga dem waaja ne ameel lu ma ko dara su boobaa kon man axakay ameel na ma man la ñuy dëggal waaye laa si def waaw du ñu dëggal muhil ci wooteem wakalatul wakil aw salafan wala lépp tey da ngaa dikk ni ma fay ma ma ne la demal tëddiw mu fay la nga dem kooka fay la boobu ma amee loon nga ñëw ma ne la ah dama laa yónni woon nag wala dama laa wakkiloon nga ni déedéet da nga ma koo fayee li nga ma amee loon yow mi wax loolu yow la ñuy dëggal foofu la buntu boobu jeexe baabul nga ni adamaanu warlu soxlu simmatin mooy soxlaal baat waxuraa beneen beaqin ci àq wa saxa wér na warlu min ahli tabarun ci ku yelloo coobare boo déggee warlu nag fii li mu tekki maanaam mooy garanti képp ku yelloo coobare mën ngaa garanti nit te mu kaatab bi ni ki mu kaatab wér na mu maanaam war mu mu mu mu gàddu nit maanaam mu kaatab war naa gàdd mën naa gàddu nit wa maa seen jàmbu ñu digal yaxal ase na koo xam ne digal na ko saydu maa sa nga seen ñoom ñaar wér na mu gàddu nit wa soo jëteen jabar wér na mu gàddu bi sulusin ci sulusu alalam moom itam dégg nga de wa ma dil ko wopp wér na mu gàddu bi sulusin ci sulusu alalam ci kanam tuuti nga ne wattu bee toppes na soo riqin boroomu njaam bii ca la mu gàddu maanaam jaam moom bu gàddoo des na ko topp nga day la ten at xandeem gore na bu goree fay ko wala saydi saydi jët ñëw sang jabru foo forcé jaam ale yi ci gàddu tey nag sang sañul ni jaam bi dama lay forcé nga gàddu diw déedéet nga ne wa dagal na gàddu anil may ci bor bu war aji dee al mufsid kiraji ñàkk maanaam mën ngaa fekk ku dee amul nga ne maa warlu ay borom wa daaminin wér na gàddu aji gàddu nit gàddu nit nga ne ma itam gàddu naa kooka wér na wala mu ajjali wér na gàddu bor bu ñu dik xaalan léegi in kaan dem nekk na mémat di bokk ci nga xam ne yu hajjulu dagal na gaaweem nit ki ñam ak marchandise bu tappi ci lekk masalan tey bor bu dagan gaawe jëkk dig ba wér na mu jëmub dig nga ne gàddu naa ko léegi laa koy fay wax ak soo ak safaan ba dagan na it dégg nga de maanaam gàddu loo xam ni dégg nga day dañ ko war a fay léegi nga gàddu ko mu jëmub dig loolu mooy wax boobu mooy wax ak soo sëriñ bi nee na waaye nag in ay sala ndeem woomal na xari muhoo aji lebam dégg nga de waaw nga xam ne in ay sala ndeem woomal na xari muhoo aji lebam maanaam tey waa ji dafa leb lu mu war a fay léegi nga ne gàddu naa ko ci dig sàngam fekk bu dig ba jotee dana woomal wér na xawlam yoosir wala du woomal sax ci la jëli ci dig ba waaye bu dig ba jotee dana woomal ba tey konet wér na sëriñ bi nee na wa wér na gàddu bil moo sori ci lu ñu woomal la ay bil mu sori wala lu ñu ñàkk la waaye laa jëmi wérul gàddu lépp xam nga lu mu bëgg a wax waa ji dafa leb téeméer di baykat ni ah bu tereetee de danaa am juróom fukk ba nga ne ko kon nag danaa gàddu juróom fukk boobu ngay am bu tereetee juróom fukk ba ca def mu ne du ko am tereet bu la neexee nga ne ko man du ma gàddu bii ngay am bu tereetee waaye gàddu naa ba ngay ñàkk waaye laal jamiw doo gàddu lépp su fekkee dañu moom dana mën a am lu mën a fay am lu mën ta fay wér na nga gàddu lu ñu mën a fay la wér na nga gàddu la mën ta fay waaye wérul ngay gàddu lépp dama ne woon ngàddaay nag ak damaanu ngàddaay dama ne woon suxlu si matin mooy soxlaal baat oxraa beneen bi akkin ci ak mooy nga fekk ak junit amee nga nga tegee ko ca moom teg ko sa baat ah waaye nag bi day ni na amee ci bor laa si mën bu daa ji war nay bor bu war de kon nag na bor moo tandi ko borob gone ak bor boo xam ne si safihu da koo leb ak yu demee noonu toog kenn du ko gàddu aw ay wala muy aji mujj ilay jëm ci war la nay bor boo xam ne bu warul léegi dana wari ka jixulin dégg nga de ci kanam tuuti mu lu mel ne te neexal waaye dañu ku ma jëlali sama gërëm gu daw ga boo ñëwee ma fay la nangam wér na benn waaye muut ku ko gàddu nit ñi ko man waaye laa kitaab na fa biddiwu njotoo biddiwu njotoo boo xam ne jaam dala koo war a jox sangam kenn du ko gàddu ndax ka ko war a gàddu su jaam ba amul it waru koo joxe kon looloo tax wa wér na wa daayin wa wér na waxam jamonoon daayin lebal dégg nga de fulaanan diw le wa wér na waxam jamonoon daayin lebalal fulaanan diw wa anaaman daayiman aju waru laa ca sot dégg nga de kooku wér na waaw waaw wala sama war la bu boobaa nag ngàddaay la fii maa ci lépp loo xam ne sabata sax na soo nee lebalal jiw maa maa fay lépp lu sax ne leb na ko yoon ko fay muy waa jàmm yàlla ndax yu xaj def na ko tënk bi maa ci loo xam ne yu amul def na jëfandikoo bii ci loola waaw lebalal jiw mu fay ndax dañ koy tënk ci li ñuy jëfandikoo rek te kon da nga naan fonctionnaire bi boo ko fekkee ci bitig bi ñu ko lebal dund ak li muy lekk ci weer bi loolu rek nga war a fay bu lebee lépp loolu sa yoon nekku ci am moom kay lépp lu mu lekk da nga ko fay saa yu daa am na ñaar jëm tan wala hoo ñeel na aji gàddu rujooxu dellu xam nal moo amal dikk jëflante da nga ne diw nañ ko lebal ma gàddu ko amaa ñu koy lebal mën nga ni banaa waaye bi xilaata loolu nag ilif giñal wa anaa man daamin aji waru laa bii ci moom benn waaye dafa ñëw ni diw ameel na ma nangam nga ni ko giñal boo giñee ma warlu ko mu ni giñ naa kon nag su boobaa yaa ko gàddu ba nga déggee ma ni ak damaanu suxlu simmatin mooy soxlaal baat dégg nga de uxraa beneen beqin ci ak in am kana dem jàpp ne istifaawo fayu ga min daamini ci aji gàddoom kon nag moo tandi ko gétan yi waaye joo xam ne gétan da koo war du ñu nangu nga gàddu ko ndax bu dawee duñu mën a fayu ci yow waaye jëla donte réeré fon na lu ñuy gàddu la wér na ngàddaay donte lu ñuy gàddu lu ñu réeré la ne ki da ngaa fekk rek nit amee bor nga xamoo nu mu toll nga ne gàddu naa ko wér na xaw man wala ka nga xam ne loxo ñeel na ko bor ba maanaam yow ki ngay gàddu bu la neexee sax ah xamoo ko loolu wér na dégg nga de dégg nga de sëriñ bi nee na woo wér na ngàddaay bi xëy di ci ci lu ndikalam waa ji dafa lekk nga dikk gàddu ko su digalu la ko wér na kaddaay ni ki jooxalam rek kan ngir nga jublu jàppandal da ngaa dikk fekk waaye diw anel na ma bor nga ne ko léegi kaay ma fayal ko ko kooku wér na waaye nag nañ ci jublu ju ref xande laa anatan bu muy xat-xatal fasaabak loolu yoddu lañ koy delloo bu fekkee da ngaa fay bor ba ngir bëgg nag dem ca kooka nag foo dajeeg moom ni ko fay ma la ma la fayaloon kon nag su boobaa ñu delloo ko mu nekk sidaa yi ni ki jënd bor ba dagan na su fekkee da nga caa jublu ref xan ni ki waa ji leb na nit am malaan nga daal di dem jënd malaan ma ngir bëgg moom mu ameel la malaan mi su fekkee ref xan nga ci jublu wér na waaye su fekkee da nga cee jublu xat-xatal dañ koy firi li waa jaam yàlla ba nga déggee des na delloo njënd bor ba bu ca jubloo xat-xatal xanaa in alima nem xam na bàyyow aji jaay ja ne xat-xatal la ca jublu booba lañ koy delloo njaay ma boo moom wax jooju las aru moo gën a feeñ fi di mu jëlee ci wute ba waaye bu ko bàyyoo xamul kay kenn du ko delloo am moom kay des na ko delloo mutlaqan moo xam xam na ko wala xamu ko taawilaani am na ñaar jëm tan rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim rabbana waj'alna muslimin laka wa min suryatina ummatan muslimatan laka